d'après yow. Euh, merci beaucoup Birama euh, je crois que wàllu suuf ci Sénégal dafa nekk benn problème bu yàgg mais foog ñu taxaw tuuti ci histoire suuf euh, xam nga ñun ay population africaine sénégalaise dañoo am relation ak suuf boo xamante ni Occident amul relation boobu euh, mën nañu wax ni maanaam. suuf niñ koy amee fii ci Sénégal bu njëkk dañuy wax ni c'est par le feu la hache euh, maanaam ci la amee suuf maanaam da ngay ñëw gis espace nga fàkk nga lakk nga dëkk mais loolu nga xamante ne ñun ñu ngi koy def jamono yooyu boo fàkkee nga dëkk suuf boobu dans si sa si sa considération yow yaa ko moom mais askan wi nga dëkkal aussi dañuy jàpp ne yow yaa ko moom amul woon également benn structure wala loo xamante ne teg nañ ko ba boo fàkkee dëkk foofu ngay mën a dem nga crédibiliser sa suuf lu dul nit ñi xam nañ ni diw moo fàq fii dëkk moo ko moom hmm. di ko bay di ko transmettre de génération en génération tubaab bi bi mu duggsee ci réew mi aussi ànd ak ay ñooñam ñu ñëw fii di exploiter suñuy ressources ñoom it bëggoon nañu xool nan la ñuy mën a tegee loxo ci suuf bi pour mën a liggéey pour mën a des fi ak seeni ñooñ continuer seen seen seen seen wàllu liggéey ci loolu nag la ñu jël laam le mode de gestion foncière bu Europe wala Occident indi ko Sénégal par de lois nga xamante ni foofu mode de gestion bi mooy suuf da ngay am titre nga moom ko wala état bi moom ko naa nag bi ñu amee indépendance ñun codifier nañu par une loi c'est-à-dire la loi 64-46 du 17 juin 1946 loi boobu moom moo teg ce qu'on appelle la loi sur le domaine national ok loi boobu boo ko xoolee ci ci gàttal rek suuf bi ñetti pàcc la pàcc bu njëkk bi ñépp a ko bokk muy la domaine national l'État moo koy gérer mais moomu ko bi ci tegu domaine privé la ak domaine public bu état 3 pour cent la bi ci tegu domaine privé la maanaam ñun ñëpp ku ci nekk am na ci sañ-sañ maanaam am nga sañ-sañ moom ko maintenant lan la loi bi waxoon avant mille avant ba bana bu ñu bi ngi tëjee tegee loi bi en 1964 dañu wax ni ñu ngi waaj a codifier pour suuf bi maintenant bu ñu bu ñu bu ñu wotee loi bi six mois après képp koo xamante ni dëkkoon nga ci espace. Mhm. wala nga amoon suuf na nga ñëw déclarer ko ñu utal la kayit nga immatriculer ko ci sa. passé délai boobu noonu suuf bi yépp nag état bi moo koy gérer pour tout le monde. après 1964. 64. ok donc boo seetloo loi yooyu dafa am yeneen loi yu ñëwaat ci wàllu suuf am yeneen lu ñu considéré wala loolu ci décentralisation lañ koy analyser parce que bi ñu tegee loi sur le domaine national état bi également dans le processus de décentralisation dafa ko les communautés rurales en 1972. ba pare jox leen ay compétences. en matière de gestion foncière. compétence nag ci dafa limité wu woon ci affectation ak désaffectation maanaam tey jii da nga bëgg a bay nga ñëw ci communauté rurale bi ñu daggal la suuf nga bay. mais taxul nga moom ko. mais taxul nga moom ko maintenant bu ñu la daggalee suuf en principe boo ko exploité tul ko war delloo. d'accord bu fekkente ni dee nga aussi dañu la ko war dañ ko war a delloo communauté rurale bi ñu joxaat ko keneen. mais mm-hmm. malheureusement suñu relation ak suuf moo demee ni bu ñu la joxee xasee ba jox suuf rek dootoo ko delloowaat maanaam soo dee dañ koy donnante. Mm-hmm. loolu mooy problème bi moo moo moo indi nag le problème entre le conflit entre le droit traditionnel et le droit moderne. Okay. parce que ñun ni ñuy apprécier suuf bokkul ak ni ko tubaab bi di apprécier. moo tax ñu naan suñu suufu maam la suñu suufu maam la. mais taxul nga am kayit yu. déedéet parfois du doo am kayit parfois doo am kayit am na ci nag yenn dëkk yoo xamante ni jotoon nañu am dans certaines portions ay kayit mais titre foncier boo ko xasee ba am ci suuf. on dit que le droit foncier euh, le titre foncier la c'est le le droit le plus absolu soo ko xasee ba am yow yaa ko moom mais boo ko immatriculé wul nag à partir de